ay kii ay poudre bu may jënd woon. léegi loolu hmm. noonu nga xam ne tàmm nga ko pomp. moo dem ba indil la problème hmm. respiratoire. Ah, loolu la nag. Uh-huh. waaw yaa ngi dëkk fii dëkk fii ak sa soxna. Ah, ak sa jarbaat ah, say njaboot bu sew. Euh, ñi nekk ci ngi dégg ngay wax ne euh, waxatoo sax waxu location bi waxu hmm. euh, kër gi ñu leen bëgg a génneel. ngeen di xëy sax oh, loolu moom. am na ay soom bi la ñuy togg léeg-léeg mën nañu togg fi soom bi suba soom bi ngoon léeg-léeg aussi ñànkatan ak bisaab rek la ñuy def même tey loolu lañu ñuy def waaw donc loolu ngi ci affaire bi waaw euh, tey jii euh, gis nañ li nga xam ne moom ngay dund borom kër gi dafa soxla këram xëy na li mu bëgg mooy nga daal di génn ak sa njaboot. daal di koy abal bañoo génn waaye da amul foo nekk. dañuy dem seetaani témoignage. Euh, mm-hmm. sa benn dëkkandoo. Mm-hmm. boo xam ne rek euh, dëkk nga ak moom. Mm-hmm. Euh, mu doon koo xam ne rek ku baax la. ñu seetaani ko daal del soit léegi ci wax ji sur la 7TV. ci seen émission 7 voix ni nga def nii ñu ngi koy rafet rafetlu bu baax parce que ñun ñii sax am nañ ci lu naqari parce que tey jii bu ñu yoroon kër gu yaatu wala ñu moom kër gu moomal suñu bopp ñun. amaana dañuy ñëw jox ko moom mu dëkk parce que gis nañ li muy daj parce que dëkk nañ fi dëkk bu yàgg boroom kër gi abal leen ko mu metti loolu ci ñoom te teewul ñu ngi koy gérer waaw ñuy ñaan ndimbal rek ku leen mën a dimbali rek nga dimbali leen. liñ si fekk bari na ndax événement mu say jot euh, rawatina tabaski waa paa bi jàmbaar la day dugg fu nekk day def lu nekk mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam des fois mu lijjanti ba sonn du am xar mais comme man maa ngi moom ñoo jàkkaarloo kër man des fois nit sax du sopp mais des fois di nga xool situation nga xam ne lii situation la daal léegi damay bàyyi ba jour tabaksi bi bu ma reyee sama xar ba pare ma dagg si lu baax dagg comme sa dagg pooj bi ak yi si tegu ñëw ba si kër gi jox ko bu ne wala bu ne suba tabaski bi balaa maa def la damay ndugg bu nduggee ay soble ak pomme yooyu ba pare si kër gi dama koy xaaj jox ko soxnaam su ma ko joxee après tabaski bi suba si damay ñëw bu ma daggee yàpp bi tàkk damay ñëw jox ko ko parce que nga xam ne soxla woon nañ ko bu baax waaw mu metti lool si ñoom paa bi nag jàmbaar la waaw li muy metti metti si moom day jug day lijjanti buggul njabootam yi xiif bugguñu ñu mar bugguñu ñu ñu rafle soxnaam bi tamit jàmbaar la suñu nekk lay dugg pour mën a dimbali njabootam soxnaam day fóot mm-hmm. day fóot lu nekk lay def pour rek mën a dimbali njabootam euh, bu matul deux ans mm-hmm. mat na trois ans uh-huh. waaw loolu bari bari na lool lool lool boo ma ko fi taxawee di lim sax euh, duñ fi jógee parce que déjà rek dëkk ci kër goo xam ne amul douche dafa metti mm-hmm. dëkk si kër goo xam ne amul amul toilette mm-hmm. amul ndox amul courant mm-hmm. ñu ñëw di bu tàngaay bi ñëwee dañuy ñëw si kër gi des fois seetaan fa télé bu guddi jot ñu soog a dem tëdd. suñu kër fu leen daan seetaanee télé xale yi. wala ñu toog fi si mbedd bi des fois damay toog fi si biir kër gi fekk leen bu ma toogee si mbedd bi seen leen sama yaram day daw mhm. ba dama naan kër waa kër gi tëj leen buntu kër gi parce que dañuy toog si mbedd bi lu yàgg ba nga xam ne tàngaay bi dina wàññeeku ñu soog a si biir tëdd mu nekk lu métti loo xam ne ñoom ñu ngi koy dund man maa ngi koy remarqué mais bu ma doole bi nga xam ne kon yéen kenn du ma si jiitu wallaahi paa bi dama ko yërëm ba mënu ma ko xool buy dox duma ma ko sax xool parce damay xam ne bu doon am na tey ko aw coono bi muy doj nii du ko doj ak santé may ko ko sante may ko ko te day jug saa yu xëyee dina lijjanti man des fois sax dama koy gis mu dem gaan mu sundug ñëw sama yaram day daw daal may xam ne dëgg na yàlla jàmbaar la jàmbaar dëgg la waa di leen lancer appel ni leen di leen ñaan ñu dimbali ko te yàlla rek tax ñu dimbali ko ci kër ku mën a abal si kër wala ku ko mën a luyeel wala ku ko mën a may kër sax parce que dëkk bi mën am na ñu ko mën war nañ ko mën a def parce que des fois ñu def loo xam ne si dëkk bi ñii ñoo ko gën a yeyoo waaw war ñu ko mën a may kër war nañ ko mën a luyeel war nañ ko mën a di ko di ko jox dund jàppale ko bu baax parce que amul doom bu góor bu mag bu ko mën a jàppale ay xale rek la yor waaw man loolu rek laay ñaan ku ko mën a dimbali te yàlla tax parce que kër gi waaw ku mën a dimbali te yàlla rek tax abal na leen ñaari at muñ na ba sonn dafa soxla këram si si wax dëgg na yàlla ku ko mën a dimbali te yàlla tax rek lañ soxla. jërëjëf euh, kon nag euh, gis ngeen euh, ni mu demee comme ni mu ko waxee rek tabaski bi daa yëkkati tànk daal di yëkkati li nga xam ne rek mooy ndugg daal di jox ko seen dëkkandoo la mu doon koo xam ne rek yenn saay bu méttee ba métti ñoom ñoo jàkkaarloo kër te nag njabootam sax comme fii amul courant fa la ñuy nekk di seetaan télé ba yenn heure yi ñu soog a ñëw tëdd ndax nag tëdd bi si boppam sax duñ ko yàqamti ndax nag comme ni mu ko waxee kër gi fi ñuy tëdd bëri na ay matt bëri na ay yoo maanaam bëri na li ci nekk loo xam ne tey jii boo tëddee sax doo nelaw euh, papa yaa ngi dund loolu euh, borom kër gi tamit mu ngi taxaw temm naam nag comme ni nga ko waxee dès le début ku baax la ndax ku la abal euh, diwaanam lu mat ñetti at yu manqué nga dëkk fi fayoo fayoo dara mu nekk fi di la muñal tey jii bu soxlaa këram yoon la nga génn comme ni nga ko waxee mais bañoo génn waaye dangaa amul foo nekk waaw feebar waaw ah, léegi bu ma bëgg dem uuti damay dox tuuti rek ma miir il faut ma toog. Mhm. noppalu encore dem mais xam nga loolu yëpp ma doy na waar. Mhm. te aw ma ay doom yu nga xam ne yu mun na ma dimbali. amoo ay doom yu mag. déedéet amoo bu góor bu mag. bu góor bu mag kooku magul ay fukki at ak nangam la yore. Mm. te kooku apprenti kii la soudeur. soudeur ana sa ah. yeneen doom yi. déedéet amul yeneen doom am naa benn jànq aussi kooku aussi am na woon temps hmm. dafay jàng woon hmm. ma ne nag léegi mu bàyyi jàng bi parce que mënatuma léegi fay affaire école hmm. tu vois donc kooku aussi mu ngi fii Mm-hmm. Euh, mm-hmm. mais foog nañ ci yu bay na amoon nga ay doom yu góor ñoo xam ne ñoom ñaar ñëpp dañoo génn àdduna waaw ñaari doom yu góor ñu gaañ. Mm-hmm. yooyu moom bu ñu dundoon tey euh, du ma sonn. Euh, ndax yenn saay dina lay dal papa nga hmm. sa xel dem ci ñoom. Ah. nga xalaat ne amaana tey ji bu ñu dundoon mënoon nañoo am. Oh. yenn at yi ba dimbali la. kay moom toujours damay am loolu toujours vraiment. bu ma xalaatee loolu damay bëgg a jooy sax. Mhm. mais aussi damay jàpp ci yàlla rek moo xam ne loolu gis rek. ñoom ñaar seen seen seen dese soxantewul maanaam seen génn àdduna. déedéet soxantewuñu. parce que naka la demee. keneen ci dafa am 5 ans. Mhm. après mu mu génn àdduna. keneen ci presque feebarul sax dafa nekk woon ak suma yaay. Mhm. ci dëkk àllay. bu gannaaw Tamba. bon léegi nag man fii laa nekk mu jëkk rek mu ne ma dem ci suma papa waaw suma yaay mu ne ko waaw xaaral xaaral xaaral ak léegi mu nekk di jooy jooy jooy bo bañ mam lekk sax mm-hmm. waaw waaw ma la gaañ ci ñaari fan ñetti fan mm-hmm. waaw ah ku lekkul kay dana de noonu la keneen nag waaw keneen ki ñaari at rek am non kooku tam moom tam feebaru dafa jékki-jékki rek gaañ waaw donc keneen ki war na am fanweer ak juróom mbaa juróom benn bon keneen ki aussi war na am fanweer at ak ñaar. kon tey jii buñ mm. mhm. ma xalaatee loolu sax damay bëgg a jooy. damay bëgg a jooy. waaw def. Mhm. donc loolu yëpp nee naa ko loo gis rek dogal la. Mhm. nañu yàlla jàppale rek. masa euh, papa gis nañu ne tey jii comme yaa ngi nekk ak ay xale. Euh, fukki at fukki at ak lu tegal. Euh, ku ci xiif dina feeñ. yenn saay nga am ñànkatan ak bisaab boo leen jox. waaye yenn saay nga toog dara du fi nekk. sa soxna dafay fóot. ma bàyyi la nga wax ñu naka ngay dundee situation yi. Ah, yenn saay nga xëy doo am loo leen jox. loolu kay situation bu jafe la. ma wax léeg bon bu ma amee ah ma jox leen ñu def dara comme lu nga wax ñànkata mbaa soom bi mbaa leneen mm-hmm. bon bu mu amul te nag léegi léeg-léeg eh, eh, si dem eh, foot ñu fay ko mm-hmm. waaw mu ñëw togg léeg-léeg aussi nag mun na dem foot passé sax fekk dañu ko fay dañ koy wax suba gannaaw suba mm-hmm. loolu voilà problème boobu rek am donc loolu dana obligé dem ci boutique yi lépp mbaa moom mu dem ci boutique yi lépp donc. Euh, euh, yenn saa ñu lebal la yenn du ñu bañ sax dañuy bañ complètement mhm. nan ngay xale yi ci cas yooyu. ah waxtu boobu dañuy naxante rek bon nga gis la lee am ku ñëw foofu fekk ñu ci situation boobu jox leen cent franc deux cent ba cinq cent waaw donc euh, jëndal leen léegi soow. Mhm. def noonu ngay dundee. Mhm. Euh, dañuy dem seeti soxna euh, seetaan ko mhm. ci ci seen mhm. émission 7 voix sonn rek. sonn rek de paa bi daa waroon ba sonn. amagul amul kii ni luy ah, luye. am amul lu abal. naaj bi tàng jër. mu ngi war amagul bu ñëwee sax day moo utal ko ndox bu sedd mu naan mu noppali waaye sonn nañ torop dañuy abal ngir yàlla yonent bi kooku borom mi ñëw na soxla kër gi mu ne seeta leen fu ngeen nekk ma ne waaw dañuy seet fu fu ñuy kii ni seeta fu ngeen nekk ñu e, ne seet li ngeen nekk ma ne après soobee yàlla dañuy seet soo borom kër gi kay moom kay wax na wax na ba sonn kiiwul amoo amagul keroog rek la woo paa bi mu ne génn leen ba léegi day ñëwaate mu ne ba ma ñëwee dañuy xoolal lu ngeen nag man de paa bi mu ne waaw soob yàlla kay defal ndànk rek dañuy seet depuis koor bi mu ngi seeti amagul dañuy yaakaar rek nit yi day wax suba gannaaw suba suba gannaaw suba ñëwagul yéen dimbale rek ngir yàlla yonent yi fekkee ñëw nañ fii ak Macky Sall ak jabar yëpp ngeen dimbale ma ngir yàlla yonent bi mm. sonn ne billaay loolu sax dañuy rusu loolu sax mm. waaye sant yàlla yàlla moo def kenn mënu si dara yàlla lu ma lay def kenn mënu si dara suba teel damay xëy wala ma leb borom bitik yi sax mm-hmm. lu may ndekkee mm-hmm. soo ma soo ma footee ba pare ma ñëw fay damay liggéey damay fóot ah, mm-hmm. waaw yu fay léeg-léeg ma ma kii ni patron bi léegi desal ma jox ma genn walla bi après ma ñëw kii ni toog bu toogee bu pare après lu des mu ma bàyyil ba suba. Mm-hmm. après ma jox ko ndekki. Mm-hmm. suba encore ma dem. Mm-hmm. billaay wala lool rek laa dunde baa bi mu ngi ni mag na amul dara billaay yàlla xam na léeg-léeg damay xalaate xalaate xalaate ba mu sonn gisoo lu ma jeexee billaay damay xalaate rek yàlla moo xam rek. yàlla lu mu xam doy na. wallaay sant yàlla rek alhamdulilah. damay jooy jooy léeg-léeg ma jooy jooy jooy gis nga fii nu lu mu mele billaay sonn neen torop amul fi muy nekk boroom kër gi wax na ba sonn dégg yàlla nit bu la abalee ngir yàlla jokko ngir yàlla bala mu génn la bagage bi loolu mooy àdduna wala yàgg na fi ñetti at yàgg nañ fii de dëgg yàlla waaye daa soxla kër gi tax rek mu ne génn leen rek mu jox la kër gi xam nga nit bu la abalee ngir yàlla jokko ngir yàlla yonent bi loolu moo am dégg yàlla waaw waaw sama doom yi billaay wallaay soo ma liggéey soo ma demee fa sax sama xel bi fii rek la nekk. Mm-hmm. wu àdduna bi léegi wóoru dara. alhamdulilah sant yàlla wóorul dara maa ngi kii nii soo ma dewee tuuti ma ñëwaatee tuuti ma leb tuuti borom bitiki bi léeg-léeg nangu léeg-léeg du nangu. Mm-hmm. léeg-léeg damay wax ba sonn mu ne ñëw indiloo bi ma ne waaye defal ndànk rek ma indaale bi. Mm-hmm. wallaay yàlla. xanaa xanaa ma kii nii rek ma jéem rek ma wax patron yi may leen ma tuuti rek ma jëndi mburu asso leen lay lekk loolu rek laa nekk. Mhm. Mhm. léegi gisoo maa ngi toog rek futti futti diwtir yi xam ngeen loolu sax. Mhm. futti diwtir laa toog te yi rek paa bi amul. maay sama liggéey noonu lay dépensé aw ma dara. dëgg yàlla. billaay maa ñaanal dimbali rek ku mun a dimbale ngir yàlla yonent bi ngeen dimbale ma. du waa abal fenn. wala sax. wala sax luwaas ñaari néegi bëgg ne mhm. wala abal gis nga léegi amul sax lu may yóbbee hôpital am na randoo foofu sax amul amul fu muy kii ni mhm. amul fu muy jële xaalis amul fu may kii ni dem ni ñawaati ni xam nga loolu yëpp daa sonn mhm. amul xaalis dëgg yàlla amul xaalis moom lu may foraatee mënu joxaale yi lekk wala jënd orana xam nga mënul loolu loolu tax léeg-léeg boo fay boo kiyee sept mille wala six mille xam nga loolu du borom jabeetu du kii nii. Mhm. Ah, léeg sama xale yi foofu noonu lay demee jàngi école du yóbbu dara buy ñëwaatee mu ne day yaay day lekk ma ne def leen ndànk rek ba ma ñëw. Mhm. dëgg yàlla yendu noonu noonu. xale yi. Mhm. dañuy jàngi du ñu yóbbu dara. waaw du ñu fekk fii añ fekk fii añ. léeg damay liggéey ji ma ne patron yi jox ma tuuti ma desal ngeen desal ma tuuti soo ma paasee ngay eggale ma. mu ne waa kooku daa baax yet yeddi am na yeneen baax am na yeneen lu bon gis nga àdduna noor la rek. Mm-hmm. yu jox ma wala ñu tibbal ma añ ma indaale xale yi. Mm-hmm. loolu rek laa dund. jërëjëf euh, papa euh, sa soxna ni mu ko waxee day dem fóoti yenn saay du fóotalagum nit sax. Mm-hmm. waaye da koy laaj. su ko mënee jox dara loo xam ne dina ko bàyyi ci kër gi ndax nag euh, tellement que day fekk fii dara du fi nekk. ndax mën nga ñu expliquer waat ci loolu li mu wax léegi. waaw mooy lu ma la wax toujours mooy léegi rek mun na dem footu ñu fay ko mun na dem footu ñu ne ko suba gannaaw suba mhm. waaw donc bu ñëwee moom ci boppam léeg-léeg sax ragal ñëw kër ga sax mhm. waaw ndax léegi dañuy yaakaar ne bu ñëwee rek mhm. ah, xaalis dana am léegi-léegi ñu togg mbaa léegi-léegi ñu lekk ndax léegi-léegi bu fekkee ne eh, dafa xaw a guddee dafay wale waale foofu Euh, añ mu indiwaale ko euh, mu ko léegi <coughs> bu fekkee ne loolu am na bu ñu ñëwee rek ñu lekke ko voilà euh, jamono ji naka ngay naka defee ak borom kër gi jox na la délai joxaat la délai joxaat la délai boobu ba léegi mi ngi toog di la man kay dama dama dama jaaxal dama jaaxal boo xamatuma lu may def mhm. ah, waaw ndax amul dara lu ma koy expliquer pour mu mun a comprendre waaw mu mun a ko dégg. Mhm. donc euh, dama jaaxal. moom nekk fi mi ngi tugal. waaw euh, mu ne woon dana ñëw mais na u ñëwul. waaw mhm. tey jii bu la jotee téléphone bi yàlla lan lay wax euh, ah, daal jox naa la ay délai délai délai bu sot léegi nag ah dama arrière léegi ba ses mhm. mënatuma léegi arrière waaw ma ci lu ma la mhm. ne ko wóor na yàlla dama feebar bu dul loolu lii yëpp du àgg mhm. waaw mais ah, ba na yàlla danañu dimbal waaw mu ne yàlla danañu dimbal ci naxa ci naxa ma ne ko na waaw la di waxaat tuuti donc loolu la a euh, papa lan nga doon liggéey. Euh, boobu man damay jaay woon bon euh, nekk naa nekk naa woon aussi Côte d'Ivoire di def photographe naa woon foofu di jaay donc ay affaire yu bëri daal. Mhm. Hmm. ndax euh, nee nañu mm-hmm. yenn saa yooyu yaay jël mbuus dem marché. waaw pour jéem a am dara pour indi pour kër gi. waaw kooku yoon yu bëri. Mm-hmm. yoon yu bëri naka la demee loolu daa am ñoo fa xam wala. waaw euh, bu ma demee marché dafa am yu ma xam bon dañu am yeneen yoo xam ne dañu ma jox ab xaalis. Mm-hmm. mel noonu donc damay dugg maanaam ñu ma. bu poñe fees ñibbi kër ga. waaw lan la sa fii ak marché sax damay dox. fii yëg lan. marché Tinguède. da koy dox. waaw ah, waaw. ndax doo am paas. waaw waxtu boobu feebaru ma bu ma amee sax bu ma wàññeeti loolu du baax. Mhm. donc damay obligé dox. Mhm. voilà loolu loolu euh, papa diir bi lii amee euh, ñàkkul mu am bés boo xam ne euh, moo ci gën a metti boo xam ne doo ko fàtte ban lay doon waaw mooy nga ñëw rek yoruloo dara nga toog say doom yu ndaw ñëw di la entouré ku nekk di la wax man dama xiif dama xiif mm-hmm. ah doo xam lu ngay def waaw oh, bu ñu defee noonu ma gis ne dara amul te yaay bi ñu bisu damay bugg a jooy sax mm-hmm. waaw donc problème yooyu yëpp am na bon leneen aussi kër gi fii amul amul courant amul dara mm-hmm. ba gis léegi euh, dañuy wax ne dañuy dem seetaan ay télé mm-hmm. bon man yoruma courant waaw suma télé dëgg bon xam naa woon tele télé bi toog fii boo amatuma courant toog fii ba télé bi yàqu donc problème boobu yëpp am a nga loolu yëpp affaire bu métti la. Mm-hmm. nga koy dund ak xale. donc yooyu yëpp ngay wax damay dem seetaan télé damay dem seetaan télé te yow amaguloo mooy. Mm-hmm. loolu yëpp nga dafa doy waar mbaa léeg-léeg nga sa xale yi ñu dem seetaan télé sax leen foofu. Mm-hmm. waaw. day métti mais du mu ngi doy na waar euh, mbokk yi dañuy dem seetaan yi euh, témoignage ki nga xam ne rek euh, mooy jarbaatam moom it ci kër gi la nekk léegi léegi lay doon sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur kaawam no tampi torop no mm-hmm. tampi no tampi mm-hmm. o sellaani mo jogii sukaaɓe sukaaɓe makko ɓe janngoye école hay ko okkiɓe mm-hmm. ɓe ɓe alaa ɓe yaha ɓe janngoye ɓe arta taw mo hocciti taw yaayam o no yehi liggoyde wuppoye so arti wuppoyde to enen ene ñawli haalis mhm. ene ñawli rokkaɓe ɓe janggiroya mhm. dépense o ala ko yayam wuppata arta min mhm. mi yeehi mi ari mi tawima ɗo mi tawini galle o fof no wayni ene boni yurminimi ha kawam kadi sellani omo yaha hôpital uji windana rendez hay haalis o ala hay haalis o ala omo ballal kala joguiɗo yo wallu wallira men saabu allah e nelaɗo muɗum kala jogiiɗo e wallu men wallira men allah e nelaaɗo muɗum miɗen mm-hmm. ñaagidoruya kawam mi ari ɗo taw mi kawam sellaani hayi dara o alaa ko yaayam wuppoyi arti okkamo o yaha o ruttidoro rendez makko o sooda feccere heddo feccere heddinde kadi wona ɗon kadi ha o heɓta e kalis o yaha kadi o sooda e feccere wonde nde mm-hmm. omo tampi omo jogii sukaaɓe o sellaani haaji mi ron taw mi alaa mi waɗa sombi ɓalo e suukara mi okka ɓe yara hay kosam watta ñaagi wal merci beaucoup euh, papa kii tamit sa jarbaat la mu ngi fi mhm. moom it ci kër gi ak doomam mhm. euh, yaa ngi may wax ne bu sa soxna demee yi euh, moom moo fi des mooy togg ak yooyu waaw mooy mhm. amul lu mu togg moom it day togg di leen ko waaw moom tam mu togg donc loolu nit ku baax la waaw nit ku baax la ku nangu liggéey la aussi donc euh, mu euh, papa mm-hmm. naka ngeen di ngeen di doxalee ak euh, fii nii kër gi amul toilette. Mm-hmm. naka naka naka lay lay demee dund bi. nga nekk mag yor ay xale ku xam xale xam besoin am si toilette. Mm-hmm. naka naka ngay dundee loolu pendant trois ans. xale yi am na koñ foofu ñu leen di yóbbu ñuy dem foofu cabine. après ñu jël ko yëpp def ko ci suuf def ko ci. saag saag ciment comme saag yi. waaw ñu takk ko bon euh, mag yi nag aussi dem cabinet ci ci ay mbuus parce que ñu takk ko def ko ci lool boo amee ñetti fan ñeenti fan nag euh, euh, soxna si jël boobu ci guddi doon sànni ko ci kii ci hmm. ay foos donc noonu rek la vraiment dafa doy waar. ngeen koy dundee. waaw dafa doy ndax dina lay dal ngay faral di am say mbokk yu la seet si. Ah, waaw fi mu ne soo amoon sax feneen foo xam ne amul loolu sax di nga fa dem ndax ñàkk pexe sa njaboot borom kër gi soxla na këram euh, jamono ji ndax yaa ngi wut location xalaatoo ko wut. Mhm. wax mhm. ah, na waaw bu fekkee ne amaguloo fu ngay able doo uti location ma ne ko waaw damay uti. ah damay waxee noonu rek. ah parce que man na aw ma loolu. voilà mais xëy na moom ussi sax xam na aw ma loolu dafay waxee noonu. lu ci kon fi mu ne da ngaa toog nga. ah lu tax du rek sax. mais dama munul dama munul saa dox. bon feebar munul lijjanti fenn munul dem fenn. gis nga boutique boutique bi. Hmm. bu ma jógee fii léegi ak boutique bi damay nekk euh, di di kii def nii. di appart voilà tu vois léegi borom itam bi léegi ma indi chaise. Hmm. foo ma toog foo ma nopp tuuti ma soog a wax dara. waaye papa est-ce que hmm. est euh, gënul woon tamit nga jéem a dellu dëkk ba ban dëkk nga joge euh, Bundu gannaaw Tamba mais foofu. bu yow yow pëlu pëlu Sénégal nga wala pëlu Guinée Sénégal man kay xaw ma sax Guinée. ah xamoo sax Guinée sénégalais nga daal. voilà ñun waa bund la. Ah, waa Bundu ngeen. Hmm. bon mais nga. mais ndax dellu woon foofu doonul gën a yomb. tamit parce que foofu béy rek moo hmm, dañuy béy di voilà man bu ma demee foofu mënuma xale yu mag yu mun a béy. Hmm. donc xam nga tout ce coono jeexul. dëgg la mooy problème bu bund fan la nekk ginnaaw ginnaaw. Tamba bund boo paasee euh, Tamba rek. Uh-huh. boo demee nii boor kii di boo demee nii aussi bund la. Uh-huh. waaw yëpp bundu la mais ñaari yoon yu tase la. Uh-huh. kon fi mu ne nii loolu moo la teree dellu ah. euh, dëkk ba ndax nag foofu tamit béy la dundee te amoo tamit doole bu la boo béyee te amoo doom boo xam ne bu mag bu dëgg bu ko mën beneen problème day ñëwaat ah. ndax ndax yaa ngi jéem a laajte ci site yi ndax mm-hmm. dinay am chantier yoo xam ne tey jii mën nañ la ko abal wala tam comme fii nii waaw même kii maçon bi sax waaw keroog mu ngi ma laaj ci boor yi yëpp mais am na yeneen yu nga xam ne euh, doo gis kër ah, doo ko gis voilà ba am na euh, dafa am ay gardien gardien bi dañu leen di fay mm-hmm. boo waxee sax duñu nangu wax parce que dañu leen fay. donc boo waxee daal dañuy wax ne ah, kii kooku du teel a du gaaw a ñëw fii. <laughs> léegi léegi borom kër gi euh, mi ngi mm-hmm. waajal ñëw du yàgg dara. Mm-hmm. Euh, ndax nag mbokk yi boo leen gisee lii xam na doy na waar lool lool suñu papa Yero Ba mm-hmm. doon euh, pa boo xam ne am na 70 ans. à 70 ans fi mu ne nii yaakaar naa noppalu moo ko waroon toog njabootam di ko toppatoo. wala nag mu am yenn sax li nga xam ne mooy le minimum maanaam dëkkuwaay ak lu nit lekk. waaye nag euh, situation yi mu nekk mi ngi nii ñoo ko gisandoo dañ ko awal benn kër pendant plus de deux ans et demi euh, borom kër gi dafa soxla këram ndax moom it euh, ku jar a jaajëfal la. abal na ko këram mu dëkk. ak njabootam pendant trois ans yu manqué mosu koo fayeeku waaye jamono jii moom tamit dafa bëgg a tabax yeggali tabaxam pour mën a dëkk moom it ak njabootam boobaak léegi nag mu ngi koy jox ay ay mu koy faussé mu koy passé na waaye nag mi ngi yoo xolu muñ ba tey di ko muñal waaye nag mm. ni mu ko waxee dafa sës suñu papa ji nag day ñaan li nga xam ne rek mooy dëkkuwaay ku ko mënal abal fu mu dëkk ku ko luweel sax benn pantere bañul ndax nag fii mu dëkk nii dëkk na fi ñetti at te amul ndox amul courant amul toilette muy lu yéeme foo xam ne famille ñoo fi dëkk moom mm. soxnaam ay doomam jarbaatam ak doomam mu doon loo xam ne lu doy waa kon tey jii ku ko jàppale mu jël ñu jóge ci tabaski am na ci ñoo xam ne sax ñu ngi doon jooy aw ma xaru tabaski aw xaru tabaski waaye lii day firne lii rek nit loo jot rek ne siiw jot ci rek jàpp ci te xam ne am na ku ko soxla te amu ko euh, mm-hmm. tey jii moom waxul waxu xaru tabaski ndax xalaatu ko euh, dëkkandoom yi ñooy génne ci ndawal jox ko ñooy génnee ndugu jox ko waaye bu amoon rek fu mu wéer boppam tranquillement ak njabootam euh, yaakaar naa moo ko gënal lu ne ba tax na rek papa dañ lay bàyyi nga wax ñu sa kàddu gu mujj euh, ci émission bi lan ngay wax sénégalais yi ñuy seetaan pël nga pëlu Sénégal nga ak comme ci mënti doon rek yelloon nga ndimbal ma bàyyi la nga lancé appel ñi ñuy seetaan waaw man daal damay ñaan sénégalais yi mm-hmm. amul problème sénégalais yi Guinée yi ñëpp ndax nag ñëpp daal waaw donc euh, ku mu mën dimbal hmm. ngir yàlla ak yonent bi 70 ans nga am papa voilà ah eh, waaw 70 ans 70 ans hmm. ku ma mën a dimbal man suma njaboot daal hmm. fu ñu lakkatu ah loolu laa ngir yàlla ak yonent donc amul kii amul kii ku munta nekk rek waaw ci jullit Sénégal yi eh, ñu dimbal ma ngir yàlla waaw loolu daal laa. mu nekk en chantier nii. Euh, mhm. taw bi doon na leen sonal. waaw parce que dafa naa gisagoo ci kaw bi. Mhm. yëpp man maa ko defal bu weex bi. voilà bunt bi fii. Mhm. taw bi fii dafay feesoon mu dugg ci biir. donc man maa defal ciment boobu foofu ci bunt. waaw wuti ay béton. teg ko ba mu kale. fekk bu taw bi ñëwee du mun a dugg. du mun a dugg ndax yaa ngi xalaat ne ñu ci nawet. ñu ngi la bëgg a génne xalaat moom loolu kay ci nawet bi. ma ne ndax nii nii yaa ngi xalaat ne nawet bi euh, daanaka tàmbali na. Ah, ndax yaa ngi koy xalaat. ah maa ngi ko xalaat kay man kay bos bu nekk damay foog ne taw bi tey lay ñëw mhm. ñu bëgg la génne ci mbedd bi. Ah. te mi ngi taw. waaw naka nga koy dundee. loolu yaa ja loolu nag moom a gën a jaaxal encore. loolu mooy sa xalaat jamono loolu aussi. kooku aussi daal maa ngi jaaxal ci loolu. Mhm. waaw donc loolu moo tax man a dimbal ma ngir yàlla. xale yi waaw. parce du loolu ah, du baax. sa doom yi dañuy jàng. waaw am na euh, ñaar yuy jàng. lu ñuy jàng franco arabe français waaw franco arabe. lan la public wala euh, euh, mhm. waaw. Euh, tey jii ku ñu jàppale euh, ñu daal di jël utal ko fu mu wéeru rek ak njabootam ku ñu mën a jëlal xale yi en charge sax ndax xale yi seen jàng demeewul noonu da leen dénkaane fenn rek foo xam ne dinañ fa foo tuuti xam-xam euh, mu doon loo xam ne rek lu metti la mu ngi koy dund pa yero ba 70 ans la am bu ñu leen nee 70 ans nag âge la woon pour noppalu waaye jaam ak pexeem yàlla ak dogalam comme ci situation bi la ko suñu borom euh, teg euh, mm-hmm. ñuy ñaan rek képp koo xam ne rek tane nga ko boo ko mënee dimbali nga jël numéro téléphone am sa numéro ñaata la. 77. 420. 74. 21. waaw. 77 420 74 21. 77 420 74 21 mooy numéro suñu papa Yeroba. Mm-hmm. Euh, képp ku ñu mën a jàppale rek utal ko fu mu dëkk ndax nag euh, comme ni nga ko waxee rek gis ngeen kër gii nii euh, fa lañ ko abal am na deux ans et quelques mu ngi ci kër gi nekk fi nag borom kër gi xatalu ko benn yoon fayeeku ko benn yoon mm-hmm. waaye jamono jii nag borom kër gi dafa soxla këram bëggoon nag mu génn ndax dafa nekk ci ay travaux te ko war a yeggali. Euh, jox na ko délai joxaat ko délai boobaak léegi euh, munul génn nee na bañul mais dafa mënul euh, loolu nag ku ko wax yaakaar naa képp kuy seetaan te mën wala tane ko ci lenn rek war nga nu cee mun a jàppale daal di koy dimbale ci cent 420 74 74 21 mooy numéro bi ñu daal di koy jàppale suñu pàpp Yero Ba euh, nekk fii ci euh, Zac Mbao euh, képp koo xam ne sax am na kër gum ko abal en attendant mu dëkkagum ci nañu ci jàppale papa ñu bàyyi la nga daal di tàggu ñu ñuy seetaan. Mm-hmm, d'accord donc mm-hmm. maa ngi leen di yëpp mm-hmm. wax ne daal ah, sonn naa de. waaw jullit nag boo sonnee da seet sa morom jullit. mu dimbal la. ah maa ngi ñaan dimbal de waaw nañu ma dimbal ba loolu daal du baax. Mm-hmm. waaw. yaa ngi ñaan dimbal yaa ngi dëkk ci kër gi. bëri na matt bëri na yoo bëri na mbóot bëri na insectes yu fi nekk. yëpp boo tëddee doo nelaw. ndax xale yi tamit bu ñu tëddee noonu la ñuy def. ah, ah, ah xale yi kay léeg-léeg sax ñoom tam seen loxo kii neer. Mm-hmm. léeg-léeg aussi nga gis tuuti rek ñu yóbbu leen hôpital. Mm-hmm. yëpp am na. lépp la ñuy dund. Ah. kon nag noonu lañ ko gisee. muy lu mm. doy waar suñu papa yoroo ba à 70 ans. li mu mm. nekk li njàkkareem mooy fan la mën a làqatu bañul sax mm. entrée pour moom ak njabootam. Euh, di doon koo xam ne rek euh, mu ngi woon ak njabootam correctement waaye nag euh, jamono ji bi ñu leen abalee kër gi ba léegi kër gi am ay màtt ak ay yenn insectes yi. mu dëkkee pompe pompe boobu moo ko jàpp ba feebar ko gis ngeen ko fi mu ne nii mu am euh, état de santé boo xam ne euh, bu vulnérable la képp koo xam ne nag euh, mën nga koo dimbale nga dimbale ñu woote ci numéro bi daal di koy jàppale délai lañ ko jox dele bi passé na daa war a génn ci kër gi ak ay njabootam gis ngeen njaboot gu sew gi gis ngeen muy loo xam ne rek lu doy waar la ñu leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi ñu doon teewlu ak ñi nga xam ne rek ñi ngi woote pour jàppale ko amuñu seen fay ñuy wax ne rek ñu ngi leen di jaajëfal euh, ci teewlu bi sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur chaque mardi ngeen mën ko am ñu jaajafal bu baax ñi nga xam ne rek euh, ñoo tax euh, ngeen ñuy gis ci wàllu cadrage bi Cheikh Sadibou ak ki nga xam ne rek mooy Papa Diop macha allah di jaajëfal waa montage Lamine Mbengue ak ñi ci ginnaawam yëpp ñoom Papis production yëpp bàyyiwuñu kenn. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax fi amandi laa jàngeen jëf ba beneen numéro incha allah en attendant nag ñu jàppale suñu papa Yero Ba sonn na trop merci beaucoup à vous shukran